sëñ am satu jaxate nee na daa ubbi bis yam ci man daa am lu ko jiitu nag damaa jubloo leeral lii rek waaye sëñ am satu jaxate nee na daa ubbi bis ci boqaxa bi yam ci man dama am satu ma ne ko mbakke mu ne li ngeen may jox ak li ngeen may defal bugguma ci dara ku amoon personnalité ngoog sëñ ahmadou tashrif sugu nee na damay leeral tuuti ci moom ci am personnalité gu sëñ ahmadou tashrif sugu nee na bu masaa ne ahmadou ni ako bi def lay def day topp kees yi nga dégg ahmadu ahmadu ahmadu ahmadu moom Cheikhul Khadim waaw nee na nag sëñ am sutu jaxat nee na mu ubbi yam ci man na ma am sutu li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara am sutu li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara am sutu li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara taalibi yi ak alal yi ak njëbbal yi bëgguma ci dara taalibe yi ak alal yi ak njëbbal yi bëgguma ci dara man Ahmadou sama bëgg xëjul àdduna daan na ko xam surtout sama bëgg mooy bu yowmal xiyaame bu sama sang ba ne cëpp Muhammadu Rasulullah nee na bu boobaa ma dogale ko fàttali ko bay di ma ko waxoon ci àdduna antal karimu andal xadiimu dëhëran udiimu fii ka sanaay nee na bu ma nee ko antal karimu andal xadiimu dëhëran udiimu fii ka yi bu ne ma roof drapeau ba dama ahmadou ramul rammul jaam bu nak sañ ko nungo ci man rammu jaam tammi deug neena loloy sama bëgg man ahmadou bamba motax mu ne sama bëgg xajul aduna ak bëggam xajul aduna mom cheikhul khadim mu wax ne muhammadun qaada lii maa laa yafuusu bi ghairi min allah man abdahu wa akhfahu neena de duma lijeenti du ma lijjanti ji nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaadali maa laa yafuusu bi xayri min allahi yàlla ma yonent bi wommatal na ma ci yàlla loo xam ne kenn duutu ko am kenn nit su ko am bi ma ko amee ba noppi kenn duutu ko am sëñ abi bu Mbàkke nee na bi mu liggéeyee ci géej gi ba noppi suñ borom dane ko neel ahmadu mii lu mu bëgg naa ma defal ko mu ne ko ahbabtu rabbil alamin bëgg naa la yow yàlla mu ne ko wax na loolu dëgg la waaye dama bëgg nga ñaan ma nag ma may la mu ne ko li ma lay ñaan mooy loo xam ne kenn du ko ma saam te boo ma ko joxee kenn duutu ko am suñ borom na ko may naa la mu ne ko jam maxtali maa lam yakun wala yakun li mumkinin yaa man lahu kun fa yakun loo gis gaa yi am ko rek taxutoon sëñ bi jóg lu kenn mës saam nga may may kenn mës saam yii mës daje ci kenn ba adduna soso ba léegi bëgg mucc gis mucc siyaare mucc jox addiye mucc liggéeyal mucc mooy jamaxtali maa lam yëkkun wala yëkkun li mumkin yaa man la kun fa yëkkun ku dul moom ku ne benn nga cee yam ya ca des ñu di ko démerde sëñ bee boole yëpp. sant sëñ Tuubaa rek. yooyu daje ci moom nag tam amee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci matuk jikko ak matuk melo gi muy wonee kat mooy sallallahu alayhi wa jëf yu rëy yooyu ko yàlla jagleel. ak melo yu màgg yooyu ko yàlla jagleel dafa am jëmm ju ne ko mbakke ci biir bii man de daa am lu ma yéem ba ma jébbuloo gut ci yow dama daan gis yëpp yi nëbbu ak yi feeñ ma jébbulu ci yow nag mënatumaa gis dara ma bëgg a laaj lan moo waral lool ba ma jébbuloo gut damay gis lépp bi ma jébbuloo mënatumaa gis dara sëñ Tuubaa na ko loolu de ni mu demee yomb naa misaal dangaa mel ni ki duggoon ci luy dox ne ci suuf di romb garab yeeg yi muy romb di ko séen bi nga jébbuloo dangaa dugg ci luy naaw li nga waroon a dox di dend ak moom da nga koo tiim kon mënatoo koo gis loolu mooy wane na ko dépassé na foofu Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari yi dafa wax ne bi mu jébbuloo ci sëñ Touba dane maa ngi tuubal yàlla sëñ bi ne ko looy tuubal yàlla mu ne ko jëkk may ñëw fi yow jaamu yi ma daan jaamu yep ay moy la mang koy jebul ndax fu way di sakko ngëneel ku dul ci yow rirna fu ngëneel nekkoon yow la ko yàlla jox la tatulubanna min siwaawul fadlu sa taabin fal fadlu min ghayri qad kana masluba nee na ngëneel fu nekkon ñibisina del ci ci Cheikhul khadim am ko wax ne dalalatu man qasa al alqadima bi man arad jahalatu man qasa sahih bi dhil marad nee dendele seigne touba ak ñi mi ngi melni nga fekk ko wop ba sukurat desse ko nga di ko dendale ku ne jarak ku dara dëlut فكيف يقاس النصر بذي رفعة وبدر الرجاء بالنجم والبحر بالبرق نينا واو نيس ليس دي لجنتي دي جلوب سوندل ديكو دندا ليك وير با نيو غام غام لب جنت بيديو با كين دي لجنتي سوف جيج نينا نونو لا ميل الا اقسرن يا ذا الضلال فلا ترى ولم ترى من ساوى حلال الغرق نينا يوم ميكوي جيم نان ديو ماسون ناني ملك ناخ ديو دانا ني ميل نينا بايل خالات يوري سون سانغ بو ماغ بي ليم ام كين دوكو دادنا نك ماغ لين سي ليرال أيا من يماري أو يشك إن حظى وجي بما جاء به هذا المكرم إذ نهد نينا man sax du ma bañ ko gam-gamle waaye nag booy gam-gamle nag lii ngay nangoo def ba noppi boo ko defee ba noppi nangu naa sa koog ñëw boo ko deful nag du ma nangu ba ca jëkk mooy li taxul bi dirgaamin xamiisin bi xurfatin muxallaqati l abwaabi wal tamligi nabat nee na na nga fexe ba na nga fexe ba li ngay jëkk a def mooy nee na wutal gaynde gun tëj ci néeg ñu dugal la ci nee na benn bu dee raw nga it ndaw xel yu rëy noonu la ko tontoo dana ndeem raw nga it ndaw xel yu rëy nee na boobu bi ci jëkk mu ne ba ci topp mooy wa almim bi wiir wiir wa li xaq jinnaha dawaa rudal kal baki yi wala turat wala ñu wàcce la wiir wiir nga woo jinne yaag njuuma ya ñu di say taali bi topp sa ginnaaw te du lolor nee na la def loolu ولا تسلما قلقا ولا تحسي غالقا وفي العائلة ملك جاهدا من هدى رفض نانا باتي توب موي دو تون يالا دو يام سي نياكا تون يالا دو تون بنديف نانا باغي ديم جولي سي بير جيج فهذا اذا اكملتها صرت مثله نانا بودي فخا nga ba dug ci neek bo ñu bolé la gay ne nga nga dajé ak aw nak woon xirtal ci yow ci mbedd nga mucc dem wir wir jinne yi jebulu ci yow nee na boo defee loolu nangu naa yaag sëñ Tuubaa yéen a yem wa illaa fa antal xas mu sul lu mi wala manat nee na boo ko mënul nag te noppi woo yaay ko iñaan ba noppi bari xuloo te tawat nee na moo waral loolu borom gémmi guy nàcc du wax jàmm mooy loolu mooy ku loolu dal mu ne ko li rabbika aslim maahu turfan wa tartafin wa illaa fa adlan aw sa tusbih mu mun xafat nee na jébbalul ci sëñ Tuubaa demal nga jébbalu ji nee na bal discuter bi nee na boo mënta jébbalu li nga war a def mooy nga noppi wala lu ko mooy da ngay gën a suufe ndax jant la huwa ni'matul kubra allati xassana biha bi jaahi nabii rabbu samawati wal ard nee na bu la wóoree ne bu tawee gerte sax bu tawee dugub sax bu tawee ñebbe sax ku jaay am alal ku dundee rek nee na noonu la Sëñ Tuubaa mel ku bañ mu taw tiim la rek jéem la wàcc suuf nee na loolu moom mooy li li ngay jëkk a xam te jëkk ko sàmm sa bopp te jëkk koo tànn loolee la ko ko may mooy kii ñu bëgg ba kenn ku nekk di ko tàntal ci guddi ak ci bëccëg mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko ko may amewu ko ci lenn du ci ay tànn du ci ay melo du ci ay doxiin lu may rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ne woon dann muy guddeem muy bëccëgam muy léppam mu jaral ko lépp lu mën a doon